من العالم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci bis bu tedd bi nga xam ne ni moom lañ amal tey fii mu mel ne dafa nekk wàccaay ci bis bu am solo buñ dëm dëgmal mu war a nekk le 20 avril incha allah comme ni ngeen ko gisee tey nag mu nekk bis boo xam ne nii li nga xam ne nii moom lañ ci mooy solos bis biis bi dafay mel ne Sëñ Saliou Bousso mi li nga xam ne nii moom la daan jëmmal at mu nekk mooy journée nationale di talibé su ñëwee mu def ci ay activités yoo xam ne nii dafay wane maanaam bàyyi xel bu mu bàyyi ndonga daara yi ak daara yi waaye ren nag mu am innovation bu am solo mooy daf cee dugal mu musaabax xuraan yi boo xam ne nii euh, daf cee boole ay xale yoo xam ne ni dañoo mokkal alxuraan ñu ñëw ngir jongante su ko defee tamit mu tegal leen ay prix yu am solo yoo xam ne ni wax dëgg yàlla ah yaakaar naa ne euh, ñun ñëpp ñi nga xam ne nii daara ñor nañu war nañ koo sant bu baax a baax a baax a ah, ñun nag bëgg nañ bu baax ndax boo gisee xale yi tey ñu leen dajalee mel na ne tasuñ suñu yaakaar ndax niveau bi yëkkati ko na lool lool lool lool lool euh, teewaay bi tamit sëriñ daara yi ak mbooleem ñi nga xam ne nii lu baax ñor na leen te ñu yëg ko ñëpp wax dëgg yàlla teew nañ ci bis bi kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax di leen xamal ne tamit kuréel bi nga xam ne moo ko taxawal muy Miftahoul Janna ah nekk na kuréel boo xam ne nii yàgg naa liggéey waaye nag dafa bàyyi xel bu baax a baax cëral tamit daara mu nekk kuréel boo xam ne tamit wax dëgg yàlla yaatu na lool am na dakaar am na Mbàkke am na ci maanaam bitim réew li ko ñor rek mooy e, liggéey dans le social rawatina nag daara ak yu demee noonu xam nañ ne milieu bu vulnérable la boo xam ne ni dañ leen a war a beral loxo kon nag Sëñ Saliou Bousso wax dëgg yàlla ci turu mboolem daara yi nga xam ne mooy daara alxuraan yu nekk ci département Mbacké ak yu nekk ci réew mi yu nekk bitim réew yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla mi nga xam ne nii tax muy jëf yàlla ko dimbale ci barke alxuraanul karim kon daal liggéey bi fii la tollagul mu nekk laytaay joo xam ne yaakaar naa ne buñ ci génnee ba génn ni nga xam ne nii mooy résultat yi dana nekk loo xam ne nii buñ ko waxee ñëpp danañ kontaan te xam nañ ne niveau bi moom dana seere lool wax dëgg yàlla ndax dafa yëkkati ko lool xale yi nga xam ne ñoo fi nekk tamit jàmbaar lañ kon Serigne Saliou daal ñu ngi koy santaat bu baax ndax ci loxoom la yàlla jaareelu bis bu mel nii kon kooku nag ñun ñëpp ñoo ko war a sant di ko gërëm di wax nag ne yàlla nañ ko teewaat ay déwéni déwén xëy na ren am na benn ay couac yoo xam ne nii bu ñëwaatee incha allah yëpp danañ ko jéem a rectifié waat mu gën a yaatu gën ko ubbi ba réew mépp man cee bokk loolu mooy li nga xam ne mooy mébétam te yaakaar naa ne buñ buñ nappee tey rek dañuy tàmbaliwaat di waajal déwén ba déwén bu ñewé lepp lo xamné ni ci ay rëq-rëq la yo xamné ni sétlu nañ ko ren bu déwénee ni allah ñu mën ko saafara mu gëna yaatu loolu la waxté fofu lañ jëm ñun tamit inshallah kon sant nañ ko bu baax baax gërëm nañ ko bu baax billahi minash seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammad barki borom Touba ñoo ngi leen di nuyu kenn ko ci nek ci turam ak ci santam di jital ci nuyo bi mbokk yi nga xamante ni ñoom lañu bokkal kuréel gi mu tudd fondation La Clé di Paradis yàlla dogal ñu taxawal ko atam 2010 njëkk koo taxawalee ca Canada ba biñ agsee 2011 itam ñu taxawal ko fii ci Sénégal nga xam ne yàlla dogal na am na reconnaissance Canada am na ko Sénégal yàlla dogal itam li nga xam ne moo ñu ñor mooy fas yéene liggéeyal daara fas yéene taxawu daara fas yéene ànd ak ñoom li nga xamne moy seen yitte ci lepp loo xam dafa jëm ci seen walu wergu yaram ci seen walu dundu ak ci seen walu environnement ñu fas leen cee bu baaxa baax mu melni ni itam ñi nga xamne ñom lañu bokal fondation bi moy kurel gu yaatu go xamanteni amna ñu nekk bitim rew ci diaspora bi ndax fofu lañ ko taxawalee mu wacc Senegal Dakar itam amna ben benn équipe bu fa nekk fi ci Mbàkke ak Touba itam amna ben benn équipe bu fi nekk ñun ñëpp ñu fas and li nga xamne ne ñu ñor ngir fas yéene liggéeyal yàlla ci taalibe yi kon muy bis bu am solo boh xamanteni ni rend moy 3 sem édition bi ndax amalon nañ ko avril 2011 amal ko 2013 amalat ko ren ji muy 2016 mo melni nak comme ni ko Serigne massamb bu so waxee léegi ren dañ cee yok lo xamanteni ni mësu am moy lu jëm ci walu jongante alcorane mu melni kon préliminaire bi tay la ñu fas fe tanu lu mat fukk ak juróom yo xamanteni ni danañ leen jox ay prix ci bir fukk ak yoy itam danañ ci tanat ñett ño xamanteni ño ci gëna rañéku ràññeeku leen jox ay neexal yu am solo bokku na ci ren itam lo xamni ne nañ ko ci muy ay jëm yoo xamanteni ñu yag liggéeyal daara lañ ñu yag yàgg sonn ci daara lañ su ko defee buñ ci aggé ci bis leen sargal ba ñepp gis ko ñi nga xamanteni tan nañ leen ren muy al imam Serigne Balla Jatara ak al imam Serigne Sidi busso nga xam fas nañ eh, sargal bu baaxa baax bis ba nak buñ ci aggé mu war a nekk àllarba le 20 li nga xamante ni moo ci jiitu tànn nañ ñaar fukki daara ak juróom-ñett yoo xamante ni fas nañ yéene leen a jox ay don ñaar fukki daara yooyu ak juróom-ñett kon daara ju ci ne sàkku nañ ci moom mu jàng ab kaamil nga xam ne kon danañ jàng ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yoo xamante ni danañ ñaan sunu borom wàcce ci réew mi jàmm defal ko jullit yëpp defal ko réew mi itam bu bokk na ci itam ci li nga xamante ne mooy programme bi dañ fa am benn conférence bu mag bu am solo boo xamante ni danañ waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni daara am na ko ci réew mi lan moo ci euh, rolu état bi nga xamante war na ko cee taxaw danañ waxtaanee itam li nga xamante moo ci rolu kilifa diine yi waxtaanee itam li nga xamante ni mooy rolu wayjur yi waxtaanee itam citoyen yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ku ci nekk lan moo war sa digganteeg waa daara lan moo war sa digganteeg taalibe yi muy conférence boo xamante ni Serigne Alaaji Ndiaye Cheikh Ndindi moo koy def bu ñu ko defee itam danañ fa génn benn document boo xamante ni danañ ci mën a xam xëy na mënuñoo xam lépp waaye danañ ci xam loo xamante ni danañ xam ne lii ay jafe-jafe la yoo xamante ni waa daara am na ko te buñ ci liggéeyee suñu borom mën nañu cee dimbale bu baax a baax fas nañ fee yéene dajale itam junniy taalibe maanaam mille taalibe yoo xamante ni danañ teewe bis booba boo ko defee ñu bégal leen li nga xam ne daal moo ñu ñor buñ ne bégal leen buñ ne jàppale leen nag ñu xam ne bisu daara du levin 20 rek lañ ko war a célébrer waaye ñun liñ gëm mooy bés bu jot bésu daara la waaye nag bés bi mooy bis bi nga xamante ni danañ ko fésal ngir fas yéene sensibiliser nit ñi ñu xam ne ku ci nekk fa nga nekk ci sa wet bu fa daara nekkee lan moo war sa diggante ak moom lan moo war sa diggante ak taalibe yi waaye li nga xamante ni moom lañ gëm mooy daara bés bu ne dañ leen a war a jàppale moo taxoon daal ñu ne woon tey danañ fi teew ngir leeral loolu tàllal suñu loxo nag képp koo xamante ni daara ñor na la képp koo xamante ni dundinu taalibe ñor na la bu ko defee ñu àndandoo ñun ñëpp boole suñu doole fexe ba jàppale leen boole suñu doole fexe ba taxaw leen ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu dund ak lépp loo xamante ni dana suqali daara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu